waaw moom euh, arbitre international la léegi arbitre boo ñu doon ñëwal ci affaire arbitre international avant euh, ban nan ngay nan la ñuy mën a def ban formation nga war a def pour pour egg foofu. voilà donc euh, balaa ngay nekk déjà arbitre international da ngay nekk arbitre de ligue. de ligue après nga nekk arbitre national. Hmm. balaa ngay def formation arbitrage international. Hmm. léegi sélection bi nan lay demee pour pour pour kii bi. pour nan lañ leen di tànnee. donc dañuy def ay euh, formation donc bon man bi ma jàllee Sénégal la woon mais international lay nekk ñu ku bëgg a ñëw ñëw def mais euh, formation bi c'est en anglais à cent pour cent. en anglais foog nga dégg anglais. Ah, foog nga dégg anglais à hmm. cent pour cent donc nga def après ay coréens ñoo ko jiite woon. Hmm. ñoom buñ boo defee def examen bi après ñoom ñu yóbbu def euh, corriger après ñu joxe résultat yi donc euh, voilà. dañuy gis aussi si taekwondo comme comme yi comme euh, olympique la art martial olympique la. Mhm. léegi arbitrage peut-être du xaw a yomb parce que léegi sax day am ay changement dañuy changé seen protège yi ñuy sol ak yooyu. Mhm, mhm. léegi si arbi kii bi mbaa du am ay problème mu. des fois si boo leen di interpréter ay problèmes yoo xam dina tax des fois ñu éliminer si kenn wala ñu téye kenn wala dara comme si arbitre yi daal yenn erreur yoo xam te ni peut-être comme làmb yeeg yëpp sax dinañ ko def mais yoo xam ne yoo xam ne dina flagrant yoo xam ne di nga ko gis si biir euh, seen affaire arbitrage. non non du am parce mm. que dañuy def formation. Mm. après après formation bi dañuy def ay euh, ay recyclage. ay recyclage yoo xamante ne ni euh, dafa am euh, kii bu ñuy tegal euh, rules bu ñu tegal mm-hmm. donc moom la ñuy topp règlement voilà règlement donc règlement bi da moom ngay topp mm-hmm. moom ngay moom ngay def donc du am benn problème léegi pour deux mille deux mille vingt quatre avant ñoom <laughs> ñoom Omar di jël deux mille vingt quatre ngeen di préparer pour def deux mille vingt quatre c' est les Jeux olympiques Jeux olympiques Paris ah Paris voilà yooyu ngeen di préparer léegi participation bi na lay demee. donc euh, voilà merci si question boobu. parce que dañ dañ defoon présélection. Mm-hmm. nekkul da ngay dem directement. dañ def euh, présélection Algérie lañ ko defee woon. Mm-hmm. donc euh, Algérie moo nekkoon zone Afrique. donc euh, continent bu nekk dafa am zone am fu ñu koy defee. mais zone Afrique dañ jëloon soixante personnes. Mm-hmm. ñoom ñoo fa nekkoon doon def formation bi si 60 yooyu noonu 10 lañ ci waroon a jël. 10 personnes 5 góor 5 jigéen. donc yàlla def man ma bokk si cinq jigéen ñi Afrique e niveau mondial aussi ma nekk ci 60 euh, ci ci ci top 60 bi. top 60 donc top top 10 Afrique top mm-hmm. top 60 euh, mondial. Mm-hmm. donc mais ci kaw loolu dañuy seggaat encore. Mm-hmm. dañuy seggaat mais ni ñuy seggee mooy. Euh, boo jàllee foofu noonu dañ lay tegal ay critères yoo xam ne ay compétition yoo xam ne internationale toujours da nga ko war a participer léegi boo ko participer yooyu foofu noonu dañuy seggaat donc top 26. mooy dernière yeneen compétition yi yeneen compétition yoo xam ne da nga ko war a participer foofu dañu lay évaluer encore une fois. donc ci compétition yooyu lañu lay évaluer. pour nga mën a am chance participer euh, ci Jeux olympiques. Paris 2024 2024 d'accord. waaw man de li may laaj. Euh, arbitrage am na xaalis arbitre. <laughs> ah, ah? am na kay. Ah, am na ah. <laughs> xaalis. bàyyi làqatu. da ñëw fii bañ xam nga. am na xaalis. bañ gars yi xam ni yor yaa ngi dégg arbitrage koppar kese la. ndekete pareen saay day am ay ger yoo xamante ni bi am na ah. ma xam naa affaire yi <laughs> am na xam naa affaire yi léeg-léeg day day am kii ci suuf ak affaire yooyu pour ngeen def yenn kii yeeg yooyu loolu day am ci suuf arbitrage xaalis kese la. guerre guerre mënul ah, ay dëkk ak dëkk la. ci combat am dëkk yoo xamante non ah, comprendre xam na li may wax. bañ a am ko de. <laughs> Ah. loolu amul. <laughs> mënul am. mënul am mënul am. dafa ana athlète russe yi. yi fi kii woon loolu kañ fépp la am. taekwondo amu fa. jaay jaay jaay jaay kii moom te xool léegi ah ci affaire wu taekwondo yeeg yooyu yëpp mu yooyu dugg nañ ci. carte maanaam gars yi dañuy parier. kii sàngam yooyu yooyu yëpp day am xaalis kese la. sa taekwondo amul loolu. mais xam nga tey tey supposons xam nga tey jii euh, comme li ñuy wax ne xam nga ba ci match football yi da ngay gis match yoo xam ne ay match truqué la yoo xamante ne bi dañuy jënd arbitre bi wala ñu def kii tentation yooyu moo tax ma lay laaj ndax arbitrage xaalis bi fu mu toll parce que tey jii am na nu mu doon demee ñenn ñi bu ñu duggsee ci li nga xam ne mooy taekwondo kii ñëw ne kii saa nga sangamay gañe kii saa nga may gañe mën nañu teg foofu ñoom ay millions yu dul jeex est-ce que pareen saay du am jàdd ci suuf kii arbitre yeeg yooyu moo tax ma lay wax ne la est-ce que arbitre yi kon li ñu leen di fay mën na leen a permettre que ni ñu bañ a def yenn yi moo tax ma ne arbitrage am na xaalis liñ ñuy fay mënu ko permettre mais amul guerre yéen a ëpp athlètes yi xaalis amul guerre di saa mais yéen a ëpp athlètes yi xaalis donc <laughs> lu tax nga wax ko non athlètes yi dañoo dara yéew kii fi mu toll nii xaalis kii famille ba koy seetaan moo tax muy daw. déedéet defal naa parce que Samy tey moom day nelaw. non euh, nabu may ma man laaj. parce que Samy day nelaw. bàyyil ma denoo sa bopp parce que loo xamante ni ça entre deux individus. ñoom ñooy combattre. foofu nan la fa guerre am. non bi moom mooy définir yenn yi. ah lan la définir. Ah, mën na am kenn saa rek saa di wax. nekk sous serment déjà. waaw ah, maanaam da nga ne. ñëpp sous serment la ñu. Mhm. non non ñun dañuy prêter serment te dañ koy respecter. Oh. guerre amul ci taekwondo mënul sax am ci taekwondo. ok mënul am. non. waa léegi fii saa di waxee peut-être man damay. même bu jógee ci garab bi mais na ñëw ci xaalis bi. ci lan man xaalis bàyyi li nga ma la leen. xaalis xam naa da nga ma koy ñaanal xam nga élage nga yow élage. la élage bu yàgg sax élage la. da nga ma koy ñaanal miinu ko am xaalis nga. miinu ko am xaalis mais dañuy sagu. waaw ah, xoolal xoolal nit yi macha ma dërëm yor ma lu suukar eh, tool. dañuy sagu xam nga xam nga xam nga <laughs> xoolal am na loo xamante ni. Ah, arbitre international nga. ñu xam nga man plateau damay bàyyi damay mujj démissionné mais léegi. alal bi ngeen koy dëpp di mais nii nii garaaw na ah, bàyyi li ngay wax. Omar génnal ci li nga ne Omar génnal ci li nga ne <laughs> euh, Nabou. Ah. pour nga nekk arbitre jógoo rek du tig au tak nekk arbitre am na. ñaata année d'expérience ngay def wala wala faj sa jaar-jaar lan lay doon. pour nga sa question yow. ñenn moom. question yu nooy yi nga. waaw parce que baax ñu wax ci jaar-jaaru nit ki. dafa yomb loolu ñu gis nit ni arbitre la te xamuñu jaar-jaaram xamuñu critères yi tax mu nekk arbitre ak fu mu jaar. en man. bu euh, topp saa déjà compétente équipe nationale woon. donc euh, dama doon combat di représenter Sénégal partout. Hmm. bi ma jógee ci loolu. ma nekk euh, coach équipe nationale féminine. ah nga jaar jaar. donc euh, après laa nekk euh, arbitre national. doog a nekk arbitre international. international bi concours la wala dafa am examen booy. passé international bu waaw examen bu métti sax. et tout est anglais. pratique. wala écrit écrit pratique et tout physique et tout. Ah, lépp bu méttee métti. d'accord kon il faut nga am niveau d'étude bu élevé. bu élevé waaw wala boobu nga am notion. ci anglais waaw waaw mais mais man fi ma bëggoon ñëw euh, comme euh, tey jii yow moom euh, li naan sàppkat sàmmkatu mbott moo xam bi siy sox yow pratiquer nga ndekk nga entraîneur tey jii arbitre nga benn da nga may ñëwal ci niveau bi taekwondo quoi parce que yow di nga mën a. évaluer évaluer niveau bi parce que yow fi nga jaar moo tax. beneen bi ci topp mooy arbitrage bi fi saa di waxee mooy euh, pointage yi des fois ab combatant def combat ba pare mais da ngay gis mu décrier pointage bi léegi lan mooy indi loolu du ma egg fi saa egg quoi corrompu wala yooyu mais lan mooy indi loolu mais yàlla dafa def sax léegi ñun matériel électronique lañ yore. Mm. électronique tout est électronique maintenant. Ah, donc euh, dañ koy relier ak euh, écran bi donc dafa dafa dafa gën a leer. kon li saa doon wax daan am c'est pour éviter. par parlo ak yenn yi. saa saa li muy wax moom saa li muy wax moom man fekkeewuma ko. te xaw man xam naa ne amul. parce que man ba may compétir loolu amu ma ci delluwaat bi expliqué. donc électronique dañ koy électronique bopp beeg ak ay socks ay chaussettes yoo xam ne boo dóoree mooy marqué. ah léegi nit nit mooy toog di pointé. non non non c' est c' est automatique. daf ñuy yombalal waaw daf ñuy yombalal waaw. donc ñun. amul programme. billaay moo gën a garaaw liñ fa nekkee. en général mooy. Euh, règlement bi ku deful loo war a def. mën na bañ a nekk ñoom mën dañ ko tuxal. ku deful loo war a def. ñu sanctionné la. Et donc genre yooyu noonu. waaw ah, kon loolu c'est c'est réglé. beneen bi mooy euh, am naa sama benn sama benn jigéen euh, CTO la ne day liggéey quoi ci médecine bi mais aussi arbitre la ci basket noonu du kii karaté moom arbitre la mu ngi wax sax pour ñu invité ko mais dama bizarrement dama ne. Euh, arbitre yi man comme football laa gënoon maîtriser ak ay basket ak yooyu ñoom dañuy am réserve dañ loon doon tere wax ci génn wax sax ñu ne CRA bi daan na la lii mais dama gis ñu nekk ci armation. mais euh, éducation bi la. léegi yow léegi pour euh, pourquoi yéen ci armation bi yéen ngeen ñemee génn quoi di wax dafa amul ay sanctions wala qu'est-ce qui se passe. parce que yeneen comme arbitre football yooyu pour nga gis ci koo invité mu toog amul. non ku ko def ñu rëq sa ndigg. en tout cas taekwondo. Hmm. musul am sanction. je sais pas nag xawma lu nekk règlement intérieur beneen sport mais man bi ma nekk mosul am sanction c'est wax ko c'est juste que euh, bëriwuñu daal mën bëriwuñu li ñuy génn di wax wala mais terewul mais terewul wax ji lañ tëlee daal maanaam mais terewul leen ko non jamais hmm. léegi xam nga léegi man bi kii waxee nee naa ko fii moo gën a garaaw sax maanaam bi ñu defee affaire yi boobu mooy bi gën a garaaw xam nga non may ma xam nga yow fi ngay xool sàcc bi du foofu du arbitre bi mooy sàcc mais ñay ñay programme affaire yi di wax ay kii fa la tojo bi di am. comprendre nga kii mën na kiling moom. maanaam c'est parce que bu buñ la waxee ne la point ngi nii. bu waa ji nee nii ñu marqué ko point. comprendre nga xam nga yow am nga yëg-yëg yëg xam nga ni léegi kii dañ ko marqué mais ña fa ñuy programmer yëf yi foofu labaj mën na fa am. mënul <laughs> am la bañ mënul am la bañ barki Rasulullah day am c'est que problème ko neex mënul am la bañ bañ bu ñu bu ñu compétition bu amee dafay am euh, ñu toog ci taabal bi nii day am ku gérer machine bi machine boobu mooy relier ak beneen machine publique bi waaw donc li nekk si machine boobu mooy dem ci public bi kooku noonu lu muy def ci euh, machine bi mu yore mm-hmm. mooy bu ñu la sanctionné boobu xam nga mënul dem directement. Mm-hmm. boobu dañ koy dolli te balaa balaa ñu koy balaa ñuy commencé waat combat bi dañ koy dolli ba mu ba ñu gis ne dolli nañ ko wala supprimer nañ ko. ñu doog a continuer saa foofu mënul am la ah, kañ ah, <laughs> mënul am labaj nag. yow bàyyi eh, <laughs> xam nga xam nga la bëgg a wax mu wax. dama la bëgg a wax ne la man Seck li ma comprendre ci jeu yi. Mm-hmm. yaa ngi dégg jeu yi ngay gis nii yëpp euh, lu ci bari c'est programme li nga xamante ni noonu maanaam dañuy teg lépp pour wan la yow mii seetaan ne lépp leer na mais ci ginnaaw am na ñuy contrôler yëf yi ni nga xamante ni bi noonu la war a doxee. loolu amul ci ñun. ah kañ amul waaye yow. wala peut-être doo ko xam. léegi yow yow wala man. <laughs> man ma fa ne na. amul. xam naa li ma la wax. mais noo ko mën a. xam nga yow kenn nga ci ko xam ci paramètre bi nga ne. ça amul mais ci man damaa génn ci paramètre bi nga ne saa doo posé beneen question boobu amul. <laughs> waaw sax amul nga bëgg amul benn sport buñ triqué wul. waaw bii ah, amul taekwondo ah. ah. mais bu dee arma saa lii c'est compétition. arma individuelle nit ki da nga koy waajal. mu am les moyens pour mën a gagner bu dajee ku ko mën dañ koy gagner. pour man le problème nekkul ci arbitrage bi sax euh, problème fi mu ne mooy ci préparation bi ak combattant bi ak hmm. niveau bi mu toll. te am nañ VAR ah hmm. ñoo ko njëkk am football bu yàgg. ah bon waaye. li kaay ma wax la hmm. c'est man li ma la wax nii xam nga am na ci box ñoo xamante ni nangami round nangami round la ñuy def mais sport bu dox ba xaalis dugg fa. sport bu dootut nekkati sport normal non waxuma la électronique mais dama ne am na ci box. nit ñi dem di seetaani combat combat boo xamante ni bi waa ji mën na koo jeexal ci premier round. mais gars yi teg nañ ne deuxième round nga war a dem da nga fay dem dafa am ci ay kii mais ça même taekwondo bu kawoo amee kawoo boo xam ne c'est légal. Ah. kawoo bu légal boo xam ne c'est normal ni ko dooree c'est légal. Mhm. jarul dem deuxième round. xam nga daa combat. Euh, euh, de combat ak ak. li ma daa am <laughs> art combat day am. béti <laughs> combat daa am ak art martiaux. art martiaux moom ku si ku si def. Euh, kii euh, wuruj yooyu wala dara moom en tant que maître wala professeur moom sa affaire yàqu na pratiquement parce que da ngaa war a éduquer di kii mais bu dee art de combat peut mën naa mën a ñoom am lu gën a solo day am gën a am solo parce que moom dare foog pour mu dem participer foog mu moom mu mu dem si yeneen compétition ñuy évaluer ko comme ça foog mu defaat yeneen évaluation compétition yoo xam dañ koy évaluer pour mu mën a mbax dina mën a bokk pour dem euh, Paris 2024 ah, ah, waaw léegi foofu normalement da ngeen di voyage pays yu bëri léegi nag foofu moom day laaj aide bu bëri boo xam te ni wala comme li saa wax ngeen bëri xaalis demal demal seen bopp <laughs> waaw loolu merci merci Sensei parce que taekwondo bokkul ak yenn sport yi taekwondo arbitre yi ñooy jëndal seen bopp seen billet. Hmm. ñooy jëndal suñu bopp billet donc. Euh, kon du ngeen boole daal ci délégation wala yéen rek yaay yéen léegi léegi yéen yéen dëkk yi ngeen war a dem ñu évaluer leen yéen euh, instance euh, internationale bi moo koy définir wala yéen yéenay tànn fi ngeen bëgg dem comme football bi ci seen match tournoi yeeg yooyu éliminatoire yeeg yooyu yéen yéenay ciblé dëkk yi ngeen bëgg dem ñu évaluer wala yéen instance. non je sais pas dañuy laaj. xamuñu saa yow yow wax nga fi sa ger li sa ger bi. damay parce que bu nooy la. ak bëgg question bu nooy mais ay mais importance. aywa la tontu am importance. ah parce que euh, boo ré bi ñu réussir. Euh, top 60 bi. dañu envoyé ay mail euh, après wax ñu dafa am cinq compétitions majeures yoo xam ne dañ ko war a. participer dañ ko war a participer donc forcément mën naa ko waxee noonu muy benn championnat du monde ñetti grand prix ak benn grand prix final championnat du monde bi mi ngi amee Azerbaïdjan benn grand prix bi Rome beneen grand prix bi Paris beneen grand prix bi Chine Taipei. Mhm. après grand prix final bi doog a amee euh, Angleterre. donc yooyu yëpp da nga ko war a da nga ko war a participer ci évaluation bi lay bokk ak yeneen open yoo xam ne boo ko mënee nga participer nga participer ko. mais cinq yi daal ñooy li nga xam ne waru leen ko wute. waaw waru leen ko wute il faut ñu dem ci. d'accord donc euh, et comme ñun ñooy jëndal suñu bopp billet. Mhm. dafa am dafay métti. day saf kañ mais xam nga ñu ngi wax jëndal boppam billet mais defal naa ci liñ leen di fay ci ngeen di jënd billet. xaalisu boppam.

mënul jënd billet. léegi kon da ngay def noonu ci maal. di di di di représenter Sénégal un peu partout nag dans le monde 2022. j'ai fait ñetti championnat du monde. non non dafa man mënu ma organiser. xam nga la lay expliqué. saa yow li ngay wax dégg li mu lay wax nangu woo. jéem a dugg mais ah? man kii laay waxal. waaw ñu yow la ñuy waxal. ma ne waaw Seynabou laay waxal. may leen maa Seynabou. waaw defante nag. Seynabou waaw dafa nag fii taekwondo la man ak moom. Seynabou. li <laughs> toll nii moom xam naa ni bu ma bu ma mënoon a dóor <laughs> waaye maa tey parce que sama temps. li ma wax mooy. man mënuma organiser sama compétition jël ay arbitre ba noppi arbitre bi fayuma ko lu mën a jënd billet loolu lu mën a nekk. noonu loolu lañ fi fekk évaluation la déggoo li mu wax. fi fekk. kon doo li ñu lay fay mënoo ci jënd billet. mënuma ci jënd billet. à part taekwondo da nga am kon léegi fooy jëlee looy jëndee billet yow. comme nii rek yow déjà boo ma jàppalee. sponsorisé ko waaw. waaw saa saa nga jënd billet saa foog nga jënd billet xam nga saa tey. xam nga saa foog nga jënd billet question yi nga ma posé yëpp. foog nga jënd billet mais mais Seynabou Seynabou Seynabou man xam nga lu may expliqué ça. mi ngi mel na tey. man ma ni woon dama dama ma ni woon dama dama yokk sama niveau. dem bëgg a jàngiwaat leneen mm. mais mun na am man li may am weer mun na bañ a fay loolu mais samay lijjanti ak sacrifice yi may jaral mais war na mën a tax ma mais parce que noonu lay demee. mais loolu mais loolu même saa man dalam bi may dem Chine. ah vraiment bi may dem ma part. da ngay autofinancé wu sama bopp aller retour. ah mais nag saa yow da nga ko bàyyi ci sa ah, bopp. ah vraiment armation yi amuñu xaar ñoom dañuy débrouiller pour dem. yàlla na yàlla jàppale <laughs> ah, mais mais mais quand même da ngeen di am ay sponsor wala ay partenaires yoo xam ne dañuy jàpp ci billet yeeg yooyu. man de aw ma ko man 2022 ah. moom yëpp c'est à tes frais 2022 damaa ruiné fi mu nii ndax 2022. <laughs> li nga fas bari dem naa ñetti championnat du monde. dem fi grand prix final tout sa donc man maa ko. Sénégal jàppalewul la ci dara. maa ngi ministère des sports ñu la war a mais est-ce que di ngeen solliciter ministère des sports. ministère des sports en fait. bi may dem pour ñu jàpp ci biyam yi bi muy dem pour ñu évaluer ko. donc ministère des sports. Mhm. munoo dem ci moom directement parce que dañoo bokk ci fédération. il faut nga jaar ci fédération bi waaw. léegi fédération bi euh, kii dinañ dinañ ci jàpp. yow niveau bi nga jaar ak niveau international bi nga am mais nag yow problème yi ngay wax ni waroo ko am. normalement. waaw ah, normalement normalement. peut-être un débutant mun déjà euh, boobu sax problème la aussi pour am visa aussi problème la. Hmm. xanaa du ngeen dem ak parce euh, ordinaire lañ yore. man as passeport ordinaire laa yore ak sama beneen collègue bi on est deux. passeport ordinaire lañ yore ñi ñuy jox passeport de service de yéen ba ñuy dem ba boo waree dem par exemple ak exemple ba may dem Mexique. daaw mhm. dama dem ba Maroc pour wut foofu imaginez passe fii ba Maroc après doog a passe. uniquement pour wut visa pour visa kese. donc. Euh, mais yéen te ba noppi dem arbitré perte. dem arbitré représenté Sénégal. ça c'est léegi léegi yéen ñan ñan eh, ñoo la ah, a mën fi nga fi nga gis fi ma ne ñan nga war a def appel ñu man laa jàppale. man kay maa ngi kii rek ku ma mën a jàppale rek. waaw jàppale te yàlla rek tax. waaw c'est commencé si saa Ndiogou. non saa moom dina ci jàpp mu joxe. si si kilifa kër gi. borom baax la. waaw donc parce que bëgg bëgg naa ko maa ngi def sama passion la et maa ngi représenté Sénégal. am na aussi am na njort bu rafet que ni nii dinaa dem représenter Sénégal Jeux olympiques déjà top 60 bi ma nekk nii. mooy Paris 2024 Paris 2024. Mhm. top 60 euh, mondial bi ma nekk nii donc euh, Sénégal mi ngi doog a franchir boobu pas. kon yow euh, kese yow yaa voilà donc. ah nañ ci jàpp nag. yow rek ah, yow rek yaa jàll ay ca xam naa maître foofu la ñuy tëjee. d'accord léegi mu tàggoo lancer message bi mu bëgg lancer. mu ngi noonu kon naa waaw message bi moom mooy mooy li ma wax sànq rek. nañ ci jàpp di woo bonne volonté yëpp ki mu ku mu mën a jàppale. jàppale ma ma ma dem déjà bàkku bi c'est euh, le vingt cinq euh, mai. mais lañu war a dem. Mhm. donc ni ngi nii amaguma billet. waaw juste na de. et voilà donc actuellement euh, amuñu ku ñuy waxal ndax ministre des sports amuñu ko actuellement. ak ah, Amadou Ba koy assuré di ak énergie yëpp. mais Amadou Ba comme ne mooy assuré intérim yi moom. mais mën ñaar yooyu yëpp mooy assuré intérim bi mën na nekk euh, bonne volonté keneen quoi. waaw waaw dëkk bi ñi fi def lu baax franchement bari na. te lii moom farata la waa basket football ak yëpp ñoom ñoo leen di dagal billet. mais ku mën a dagal billet toute mais dagal ko benn nit qui peut le plus peut le moins aussi. maître Aïté ñu tëjee foofu. macha allah. Mm-hmm. jërëjëf merci. d' accord waaw léegi bëti xam naa dañuy dañuy kontaan rek euh, si si maître. Euh, waaw maître Seyna bu quatrième dan taekwondo la saa yi mooy tulte. ah quatrième dan quatrième dan macha allah <laughs> waaw. <laughs> quatrième dan. Ah, de xam ne moo ngi yi moom arts moom dafa xaw a. nee ko leeral dañoo ñàkk dañoo ñàkk. moom moo di quatrième dan. <laughs> xam nga arbitre bi rek la maa maa ngi gis. man ni ma doon waxee yëpp damaa def ne arbitre wax nañ ko ci début bi yaa mais nee na quatrième daan mais ça dégg dégg quand même waaw man bi may wax ak yow pour man arbitre laay daj di wax betti ne ñi def arts martiaux dañoo xaw a néew doole trop Sénégal si côté yëpp dañuy passé seen bopp ñun ñëpp presque noonu la ñuy def ah, amul xaalis te war nañoo defal boo demee yeneen pays yi nag am na xaalis moom yeneen pays yi moom dañ lay jox bu baax dañ lay teg foo xamante ni da ngay da ngay am fierté ne man maître pratiquant la quoi mais Sénégal moom dafa doy waar d'accord am naa ko ma conseil la alal boo ñu gisee ñëpp <laughs> ah. dikk mbir mi gëm-gëm la en tout na ci yàlla def jàmm mu yomb yëpp yëpp yomb insha allah kon nag mi ngi noonu seen doom la jàppale leen ko parce que nag euh, wax dëgg yàlla man ki deful moo ma jaaxal mais ki bëgg pour ñu kii jàppale ko danga ko ciy fekk jàppale ko am na solo ay ca ñu jaajëfal ko moom na bu euh, Diouf